wa naudu billahi min shururi anfusina wa sayyiaati acmaalina man yahdihi llaahu falaa mudilla lah wa man yudlil falaa haadiya lah wasalaatu wasalaamu ala alxabibi Moustapha sallallahu alayhi wa sallam wa ala aalihi wa asxaabihi wa man walaahum wa axsana ilayhim ila yawmi ddiin ayyuha al ixwa السادة الحضور leen هذا الحفل الكريم نيغي لين دي زيارة بو باخ نحييكم ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñoo ngi siyaara jataay bi yëpp di leen nuyu bu baax di leen jokkeel di ngeen xam ni kàddu gi mënta yàgg waaye kàddug sëñ Jibrilu Sekk la mu jox ma ko muy kàddug Baye Xasan Seck xalifa Canaba di ki nga xame ni nag moo moom jataay bii jataay bii jataayu bay Xasan Seck la jataay la boo xamee ni njabootam ñoo koy taxawe jataay la boo xamee ni ay doomam ak sëtam ñoo koy taxawe waaye nag kiy kilifa ci barab bii di kilifa sëñ jibi di sama kilifa di kilifa ñépp mooy bàjjan aram Seck mi ngi nii toog bàjjan ñu ngi lay nuyu bu baax ñu ngi lay siyaara bu baax bàjjan aram mii ak baay xasan sekk mii xalifa ñoo bokk bay di doomi maam Momar Taale kon bu ñëwee teew fii teewal na Canaba gépp ñépp ngi ci biir nuyooyu dañ koy jëlaat yépp teg ko ci loxol bàjjan aram mu séddale ko teg ko ci loxol sëñ jibi sëñ jibi teg ko ci loxol bay bay asan bay asan nag nee na bég na nee na kontaan na bégati na sax laay wax nee na kontaan na mi ngi ñaan yàlla nag bis bi yàlla na gën a yàgg bisub alquran ñépp ko bokk waaye moom gis na ci boppam njabootam gis nañ ci boppam cana ba gépp gis nañ ci boppam ndax daara ji daara yi maam ahmadou ndaak sekk la maam ahmadou ndaak sekk nag lii yell na ci moom lii ñu def fii yell na ci moom ndax moom la doon moom la doon doxal ba mu nekkee ca Canaba Kajoor donn baayam maam Massayer Seck maam Massayer Seck jóge fa mu donn daara ja ba maam Cheikhu amadu maamu bàjjan aram mi woo ko ci risaala boo xamee ne daf ko ko yónnee ni ko maa ngi lay déglu maa ngi lay xaar ndax lislaam soxla na la fekk ma fii ci waramaadi yu mu daal di tëj daara ja yàlla defal ko ndimbal ndax képp ku jëm ci jihaad ah bakkan mën na faa des ndax loolu moo taxoon mu jël ki jur Baay Asan mii ak ki jur bàjjan aram mii muy maam ma Mortale sekk joxe ko daara wax sëriñ ba ni ko defal ci moom alquran su ma ko gisaatee baax na su ma ko gisaatul baax na waaye yàlla ci mbaax ak sunu borom mu jëlaat ko ba indi ko na ba 1882 mu sanc ko ci alquran jur fang njaboot njaboot googu ñoo nekk ci tànt bi muy njaboota maam Omar Talla Seck ak njaboota maam Ibra Penda Seck ak njabootam maam Madika Seck ak seeni njaboot ak seeni sët kon ñëpp kontaan nañu ñoo ngi sant Sidi Maxtaar ñu ngi lay sant bu baax ñu ngi lay gërëm bu baax dañoo wax ni àll matu la sante mat mën mën mënut eh, nuñ koy waxee di sax àll jërta nawe mat déedéet jërta sante mat ñu ni ahakay lu tax ñu ni am na àll bu amul mat waaye yow sëtu amari ndaag nga sëtu mamar taala nga sëtu maam yi ma tudd la waaye jazakumullahu xayran yal na yàlla fay la yal na yàlla taxaw la yàgg ñu ko bokkal boo ko on àndul woon nag say mbokk nag mën naa am du demee nii waaye sa nijaay ji nga jiital di xalifa bàyyi alfa sek mu ànd ak yow ñun ñu topp ci ginnaawam yëf yi dox ba mel ni ba bëgg na kontaan na diine gi bëgg na kontaan na ku fi ñëw dégg alxuraan ji di nga xam ne lii kenn foraatuwu ko dañ koo jàng ba mu dugg ci xel yi loolu moo tax nag nga am ay gan yoo xamee ne macha allah duyuufun kiraamun ataw min alqaahira wa min al azhar wa man azhar nahnu xiriiji jaamiat al azhar min kulli sharia min kulliyati sharia wal qaanuun idan ataw ataytum bayna ahlikum wa bayna eh, tulaabikum wa tilaamiizukum nashkurukum shukran jazilan wa eh, eh, salaamaatina ila cheikh jaamiati al azhar wa ila al azhar wa ila jamiici jumhuuriyati al misra al arabiyya kullaha